أجلي لاقي مسكني تبابات نسفني بجاه خير من أبات نفسي وديني سمالي والولاد ومسكني لك وديعة أبات وكسى دنياي من أخريات من بيتعلق من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقاربي في دين أو في دين والأجانب فليكن إذنا ودعبا يا سماء تولني ولا تكلني للآن وارحم جميع المسلمين أبدا وسليا وسلما نصر مداك على محمد وسيلتي لك وليعقص الختام عندك والتزم الصلاة للسامبا عن آله وحبلي الحجاب فرتاك سنة داولين جاخانه Cheikh Abdou Khadir moo jàggi seytaane te moo ko daane farata sunna daawu jaaxaane Mbakke moo jàppi ko daan sunna ngi jooy ngir xam ko ak tuxaatihi la fab rangoo ko ku soog bàyyi Sëriñ Basiiru Abdu Xaadar farataak sunna ngi jooy ngir xam ko jafaatu faatihi la fab rangoo ko Cheikh Abdou Khadar Mbacké moo xamoon diine kenn dootu mel ne moom ci fonk diine inna lazina amano wa amilo alzaliati alquran rabbul xulo gayne Fatma Serigne Cheikh Fatma ma sulli say jaloore gaynde Fatma ku sopp baayu Serigne Mbacké soxna loo borom tey fak bay laa ma sulli jaloore gaynde Fatma gaynde Fatma gaynde Fatma ana soppey Serigne Cheikh borom Daaru Kuddoos ma sulli say jaloore gaynde Fatma ndax yàlla aar la man mii mu aar ma Serigne Cheikh ma di sët gëwël tay ma way la man buntu naa la jàng naa la xëy la barke borom Tuuba auzu billahi bismillahi inna waliyallah asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokk yi noo ngi leen di nuyu noo ngi leen di ziyaara noo ngi leen di balwaq te di leen balaq mu mel ni li ñuy wax rekk lu yëngulu ne li ko yëngalu ko ëpp doole ñii fi jaar lii nu fi wax ci sëriñ bi te mbooleem li ëpp ci biir baas bi kuñ ci joxoon micro boo waxul lu raw li ñu wax wax lu tolloo ak li wax sëriñ bi moo mel noonu man nag yàlla dogal kàddu gi may jël mën naa nekk ci ñaari anam waaye bi nga xam ni moo ci gën a wér te tax ma jël ko te jox ma ko mooy li may jëwri ni Cheikh Abdou Khadir ci tënd wi kon Cheikh Mamadou Bachir su yebalee délégation bu toll nii mënuleen jaarale ci benn bunt ci tund wi wudul ci man waaye waa baas beeg ñiy dégg suñu kàddu ñépp war nañoo xam ni Cheikh Mamadou bashir mu ngi ci biir baas bi ndaw lu ne mooy jëmmi ki ko yónni kon nag sëñ Sidi Mokhtar mii nga xam ni sëñ Sidi Mokhtar Sylla ñu di ko xame ñun ñëpp di ko dégg ñu koy waxee cheikhul asrar cheikh Mamadou Bachir a ko doyloo tundu Dakar gi ak li ko wër lépp loo xam ni sëriñ bi am na ngant moom dafay fay yebal mu ñëw teew bi kon man awma kàddu lu dul kàddu ko ubbil ko waaye kàddu gi moom moo ko yore ndax moo fi ñëw ngir jëmmi Cheikh Abdou Khadir ah, Cheikh Mamadou Bachir waaye bëgg sëriñ bi yabal ko mu jaare ci man ma ànd ak moom ci ñëw fii loolu rek ma tax a jël kàddu nag su loolu duma jël kaddu ndax dama am kilifa gu baax gu nekk fii ci biir baas bi muy sëñ Umar Njoor mii waxuma mag ñi ndax mag ñépp xam nañu ko moom waaye ndaw yii it ñi baaxoo di seetaan ay télé xam nañu moom mooy kan kon moom bu ma ko fekkee ci jataay bi man mii awma kaddu su dul woon kaddu Cheikh Mamadou Bachir bi nga xam ne dama koy ubbil sëñ siidi du ma jël kaddu bu ñu ma bëggee joxe damay wax joxal umbaar rek ndax moom mii bu ñu ko joxee kàddu lu waaye bëgg ak dégg bëgg koo xam ci sëriñ bi loo xam ne amul sikki sàkka wax boo xam ne direct lay doon boo ko dégloo di nga ko xam sëñ Sidi Mokhtar mii na yal na yàlla guddal fanam ndax kat sëriñ bi bu joxeñee loo am ci ay bët ak i baaram nga tàlla jëmale ko fa boo bëggee jàmm nun dey nangu nañu ànd nañu ci fépp foo xam ni sëriñ bi yabal na ko tam woonu fa nu ànd fa ànd fa ak moom baas bii nag fii mu ne miin nanu kër gii ñu jàkkaarloo muy soxna Hélène kër gii yaakaar naa ni 1978 ba léegi ñu ngi fi tàllal baas ñun di fi sant sëriñ bi bu yàggul la nijaayam moom mii sëñ si la mii ñu koy wax bëgg Bàmba jóge woon fi fii ñu yóbbu ko Daaru Salaam sant naa ci it bu baax a baax ndax loolu yëpp cant la ci man ndax keroog boo ma ñëwee ak tàngoor yu ma àndal yàlla dogal bi ma yegsee xew-xew bi am ñu ni dañuy xaar waaye juróom ndax moom comme amul doom lii nangam ndax euh, baayam xadir la ma ne ah baayam de bu ñëwee yàlla na am sens bi ma am mooy mu ñëw rek ni nañ ko yóbbu Touba waaye moom moom kay day dem Touba wala man ñi ñu jël mu yóbbu Touba waaye moom moom mënta toog fii faaw mu dem Touba baay bi baax lool ba mu yegsee it gis kër gi fees dëll ki murit mu ni man daal comme moom lii la opté woon nekk ci boobu ba léegi li mu nee woon booy boo ñu féetale ko alhamdulilahi rabbil alamin Cheikh Mamadou Bachir nag cant gi nga xam ni moom moo ko amal boppam yónnee ngir ñu ñëw fii ci biir mbooloom murit yii te lii ku ko xool xam ni pas-pas bu dëgër moo ko lal loola moom sëñ Sidi Moxtaar moo koy wax man daal dama ko doon ubbil képp ndax fii muy tund wii nga xam ni dama fee nekkal Cheikh Abdou Khadir ku fi ñëw ku ne ngir jëmmi sëñ Abdou Khadir faaw nga jaar ci man loolu rek laa doon wax maa ngi leen di jégalu bu baax a baax allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim jërëjëf. sëriñ bi daal sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey